loo xam ne daal jàpp nañ ne lu fi nekkoon lu baax la booy yàq nañ ko ba pare daal di dem seen yoon ñoom nag manifestant yi ñëwoon leen si li nga xamante ne bi moo leen mooy ba léegi rek si li am ci Sénégal bi yëpp moom lañ nemmeeku si dëkk bi nga xam ne moo di Darou Mousty tey di ay jeunes yoo xam ne génn nañ ak force bëri lool bëri ba àgg si lool sax euh, gis ngeen fii nii ngeen gis nii salle bi ma nekk nii mooy état civil bu mairie bu Daaru Muxti état civil bi moo nekk nii état civil bi moo nekk nii li ngeen di gis nii fii yëpp ay vitre la woon gis nga vitre yi toj nañ ko fii ay machine moo fi nekkoon gis nga fii la agent yi di di toog gis nga seen chaise yi chaise yi ngeen gis nii presque benn bu ne machine moo fa nekkoon mais dafa mel ne sax gisoo machine yi am na yoo xam ne yàqu mais am na xam ne dafa mel ne sax dañ ko dañ ko yóbbaale Euh, ba pare fi yëpp gisoo ventilo yi gis ngeen ko yi yëpp gis booy yàq nañ ko boo génnee ci biti tamit da gis ni même en bi gis nga fii si kaw nii gis nga fii moo nekk enseigne bi lii bi ñu ko fi monté sax yàggul lool lool bi ñu ko fi monté yàggul mais gis ngeen booy daaj nañ gis ngeen fii yëpp daxaa ñu jéem a dugg si biir xool yeneen gis bii nii gis ngeen fii booy toj nañ lépp gis ngeen ba jàll ba si gis dem wuti xool bureau bi xool gis ngeen porte gis ngeen lii yëpp gis ngeen gis ngeen lii yëpp fii daal booy wax dëgg yàlla def nañ fii mbir yu doy waar yoo xamante ni bii euh, gis ngeen fii yëpp booy dugg nañ fi yàq lépp lépp lu fi nekkoon presque booy yàq nañ ko waaw gis ngeen lii daal tey moo xew moo xew Darou Mousty gis ngeen fii mooy bureau bureau adjoint au maire bi heureusement fii dafa dafa tëje woon gis ngeen comme nii dafa tëje woon mooy terewul booy toj nañ vitres yi ba pare euh, essayer sànni ay xeer ci biir pour mun a yàq lépp lu fa nekkoon gis ngeen ba léegi tamit ñu continuer jàll leen xoolal leen ci fi nga xam ne mooy bureau monsieur le maire gis ngeen porte bii nii mooy dem directement ci bureau maire bi booy tamit gis ngeen dajji nañ dajji fii yëpp gis ngeen waaw daj nañ fii yëpp voilà booy daj nañ fii yëpp gis ngeen fii mooy bureau euh, secrétaire euh, municipal bi fii yëpp booy daj nañ ko boo dugg si ba si biir euh, gisoo fii yëpp booy daj nañ ko voilà léegi Mor Thiam mi daa mel ne moom agent la fii lay liggéeyee Mor lan moo xew fii exactement. waaw Mbaye gis nga ne ñun dañu ñëw léegi rek ñu woo mhm. dañu booy ñu ngi ñu ngi ñu ngi bi ñu commencé sax bariwuñu woon quoi. Mhm. ay plus de euh, vingt personnes lañu woon. Mhm. mais la fin dañu dem ba côté romb cuuni rek ful bi xam nga booy bu ñu rombee rek ñëpp dañuy toppaat ñëw bi ñun toppaatee nag ñu ñëw romb ba ñëw njëkk jaar ñu njëkkee romb mairie ah, ah, mhm. ñu ñëw mhm. toj toj toj kii civil mhm. toj bureau secrétariat bi toj bureau adjoint maire toj aussi bureau officier bi toj saccage ordinateur dara desatu fi daal ordinateur yëpp lañu toj instant yi moom état civil bi nga xam ne numérisé woon numérisé nañ ko. machine yi environ ay ñaata machine la war a toll. war na ma euh, quatre machines ñu ngi foon. Hmm. quatre machines ñu ngi foon ñu toj yëpp. Hmm. ndax moo ci nekk. Hmm. dèjà yàquluñ kenn ku dul seen bopp. métti na trop vraiment métti na trop. waaw ah, kon kooku ngeen di gis noonu moo Thiam la gis nga ñoom ñu ngi dèjà sa nekk nii di di ramasser yenn bagage yu fi des. kon daal jàpp leen ni mairie Darou Mouhty moom fi mu toll nii booy yàq lépp lépp lépp lépp lépp yàq nañ ko lépp sax lépp gis ngeen ko nii voilà lii moo xew fii tey Daaru Muxti lii nag mooy si biir mairie bi rek mais boo génnee si biti tamit si biti euh, booy yàq nañ foofu tali bi daanaka yàq nañ lépp sotti nañ ko mbalit taal nañ euh, lii nag dafa am euh, si contexte bu léegi ci la xew si réew mi la rek mooy manifestation yi am si réew mi yëpp moo law ba yegg si fii nga xam ne moo di Daaru Muxti gis ngeen fii mooy salle de conférence su mairie bi gis ngeen porte bi dafa tëje woon booy jéem nañ ko dajji mais dajjeekul mais toj nañ vitre yi gis ngeen ko nii comme ni ngeen koy gisee nii si image yi toj nañ ko gis nga boo ñëwee da ngay dugg biir nga xool gis ngeen li daal moo xew tey Daaru Muxti vraiment mu nekk loo xam ne lu doy waar la parce que jàppoon nañ manifestation yi ak lu métti métti métti du yegg fii si Daaru Muxti mais comme ngeen ko gisee nii booy tey génn nañ génn bu bett ñëpp nag xaar leen ma génn si tali gis ngeen ba tey gis ngeen grillage bi fii ñu ko def di ngeen grillage yi fii ni ñu ko def gis ngeen gis ngeen fii fii yëpp booy yàq nañ ko vraiment yàq nañ lépp gis ngeen boo leen génnee ba tey si si biti dëkk bi gis ngeen gis ngeen tali bi fii yëpp fii yëpp instant nii booy taal nañ ko sotti mbali di ci kaw tali bi hmm.